kenn amul yàlla rek am nag. yàlla am na ñu mu dénk. ba nga xamante ne am nañu xolu. di partager nit ñi. kon na ko def kon li nga ko waxee léegi la sekk ak jàmm. ñëpp la sekk ak teraanga. ñëpp la sekk ak lépp li nga xamante ne rek lu baax la ci réew mi. te loolu exemple la ba nga xamante ne vraiment képp ki nga xamante yàlla dimbali na la. war nga cee jàngat war nga dimbali doomu aadama yi war nga jàppale doomu aadama yi war nga gëstu doomu aadama yi. parce que lii la yàlla jox da wax pour nga partager ko te Aziz mu ngi def loolu mu ngi dëkk loolu donc koy santale yàlla rek jàppale ko ko xam ne yàlla na ko yàlla sàmm sàmm bi nag bis bu rëy la ba euh, daal mooy loolu alhamdulilah. kontaan ci yow parce que doomu aadama bu nekk rek da nga koy xool sa Fadel mu ngi def lu baax man de bu fekkee bëgg naa lu baax naa wax Fadel te di ko topp lépp lu muy def ci lu baax rek ma di topp ci tànkam di ko def parce que loolu la quoi ñun géejawaay lañ juddoo fa lañ yaroo fa lañ màggee xam nañ ñu métti xam nañ ñu métti xam nañ ñëpp mais bu ñu yàlla jagleel si tamit yàlla suturaal nañ ñu koy partagé nga xam ne xam nañu xam nañ ko parce que dund nañ ko mais le jaaxal ñëpp mooy Balla à Dordan Balla bu nekkul ci làmb da nga naan bi est-ce que da nga koo weccoo Balla ci biir làmb beneen Balla tey Balla bu ci def day mel ni mais day jaaxal ñu waa lan la waa mais am nga door ko làmb dafa am lu xew mooy ñun ay doomu aadama bu ñu toogee ak nit ay nit lañu boo ñu fekkee ci ay nit nag da nga naan déet kii du mbër bu passé na ñu dugg ci làmb da nga naan ah kii la donc ñaari facettes yooyu mënuñu ko bay ñàkk yoon loolu mooy àdduna loolu mooy sport. mais noo séeréer ñaari image yi Balla tey bu nekkul ci làmb du la sax xool mais bu tey boo ko joxuñee mu luxi la. waaw parce que liggéey bee ko laaj. ah da ngay bi moo ko laaj ci làmb. mais nag wax dëgg yàlla ku ñu fekk ak ñi ak doomu aadama kaf reetaan nekkaat ci leneen la parce que tamit aussi loolu mooy àdduna loolu mooy àdduna. d'accord li des mooy du ma bàyyi te laaju la loolu la sa rakk sa doom sa xarit nga ja nga jalaat nga jëflante ki mu tey tey boo doon moytuloo koy moytuloo ci Modou Lo. non Ama Baldé amuma lan nga koy moytuloo ci Modou Lo. xam ci Modou Lo. non non xam naa Ama xam naa ko baax xam naa ne mbër la champion la Modou Lo mbër la xam naa ne Ama amuma lan lu ma koy moytuloo ci Modou Lo ndax la mu doon xam na ko la ko yàlla defal xam na ko yàlla na ko suñu borom may ndam. ala amee Modou Lo sax da ngay préparé bokkul ak Lo moom maanaam ay doon keer champion la ay doon keer lañ ko tudd moom ay doon keer laa wax moom bu may ay doon keer ak ñu ànd ak ay doon keer mooy amul lenn lu ma ci anglais amul lenn lu ma a faale ci li ma war a nekk laay nekk ci li ma war a def lay def ay magam ay xaritam rawatina Gilles Bal la nekk champion nekk mbër jaar fu ne ci kon Ama Baldé am na encadrement bu doy am na saf bu doy man aw ma lenn lu koy moto ci Modou Lo dara bu dul ñaanal ko yàlla yàlla may ko ndam ndam bu sedd guy waaw. ñenn ñi def analyse nag jàpp ne Ama Baldé peut-être naa pare ab tëggul combat bi suñ ko bëree bu baax loolu yow en tant que sportif fréquenté Ama def ci moom lu bari tey lan nga dolli Ama am nga yaakaar ci wax dëgg wala dangoo. waaw xam nga léegi làmb. c'est-à-dire que peut am na ñoo xam ne dañuy wax pour promotion la Fadam bi de moo wax loolu. am na ñoo Fadam moo njëkk a a wax ni daal dese na ak. Eh, waxal ko loolu de waxal ma. non <laughs> ñaar ay ay ay copain ngeen. li ma ay copain ngeen. non dama ñaar ay copain ngeen. kon ko defee ngeen lii mooy lii mooy àdduna. mais nit koo xamante day yor bureau chaque jour mu xëy di dem liggéey moo xam lu nekk ci bureau moo xam dossier yu muy réglé ak yu mu dul réglé. voilà lamb dafa yor bureau nag. waaw mais ma tudd rek. boo boo mayee tudd dinaa ñëw. laissez-moi terminer s'il te plaît. maintenant laissez-moi terminer s'il te plaît. mais man nga booy xëy di liggéey sa saak ngay gàddu yow sa oto dem yow mbër bi day xëy di gàddu dem dunya baa mu dem géej baa mu dem musculation ngoon jot mu dem comptable Fadel ay million dafa neex man léeg bu ma gisee ñu naan. mbër bi entraîné wala mbër yi pareegul ay ree daf may jàpp parce que mbër bu ñàkkoon jom du fay ko ay millions mbër bu amulum fulla am fayda ñemewul lu muy def non fi gars yi yem nga yem ay trois cent mille quatre cent mille ñu lay fay ay centaine de millions nga non fit sax yow loo am fit fit fit fit mooy la nga toog benn place sa ngor mooy la nga toog si benn place xoolal yow ñu lay support ak ñu lay ñaanal ak ñu lay jàppale ñii booy bëri ñii bëgg a rey seen bopp loolu waxin la rek xëy na peut-être gars yi yokk pour xumbal pour neexal pour ñaaxaat mbëri rek parce que làmb boobu yi bëgg nañ mu neex mais ñu koy wax ñëpp man xam naa ne ku ci mel ni Bour Gueweul xam naa ko moom fanseur la non bëgg ñëpp la yéen ñëpp a yem bëggoo leen kenn ñëpp ngeen yemale parce que loolu mooy sor amoo droit faral kenn mais nag ki nga bëgg yow xam yàlla moo xam parce que yàlla suñu borom sax day bëgg ndax bëgg na rasulullah du dëgg bisu yàlla suñu borom rasulullaay rek lañ gërëmul ci àdduna kon donc yàlla na leen yàlla dafa jàmm dafa leen salaam dafa leen jàmm tawfeex. mais euh, riñ bu Ama Baldé ak Modou Lo àdduna bëgg nga naa mën moo xam bëgg naa lool. ko xam nga. runkum daje. runkum daje ci la ko. Ah. waaw mais bàyyi ñu ndékk man ndékkeeku ma ngeen jëf gis nañ la tey nga ñëw ci euh, petit déjeuner bu am solo bi Abdou Aziz Aly Ndiaye di def bokk ko nag ak Sénégal gépp ak mboolem tarixa mboolem diine euh, ndax mën nañoo xam sa tur ak fi nga bàyyi ak lu waral ñëw. man maa ngi bàyyi ko Géejawaay maak Aziz ñoo dend kër Mati Mbuub laa tudd waaye tubaarikàlla ma laa laamin Fatim Bakari lii da koo tàmm def ndax tubaarikàlla lii muy def Tiwaawan da koy def Touba Alaaji Ali Ndiaye baayam lii moo nii lay def comme lii as def la baayam di def ba yàlla jël ko mu làqu waaye as nag lii mu def di mérite la. dañu ñaan bu déwénee yal na man lu ko ëpp yal na koy def ay ati ati ati at kenn kenn nelawul kenn xiiful kenn marul bernde yi bari na mën na lu baax yal na ko yàlla la fal teg waaye lépp grâce Adja Xuda Diop yaayam yaayam dafa baax lool tubaarkàlla yal na ko yàlla la fal teg bu déwénee yal na man lu ko ëpp ci barke Mouhamed. ne bépp daje fi ndax mën nañu xam euh, sa teewaay fi lan. salaamaaleykum man Koumba laa tudd. sama teewaay ci kër gi du lu bees yàgg naa fee teew bi mooy sept ans gàmmoo fii rakkam mooy sama xarit Anta Ale. lan euh, yi yàgg na du tey teranga yi yàgg na yàgg na lii du lu bees da di chaque année dañuy gën a innover rek mais lii du lu bees li yàgg na. mais noo gisee ñaareel bi ñu teg 4 euh, jours avant gàmmu. Aziz daal am ñaareel macha allah adduna bépp rafetlu ko ah, loolu moom la concerné nag concerné ma. am nga ci am nga ci loo sànni en tant que jigéen. non aw ma loolu moom la. concerné daal fi nga fas yéene gàmm. fii lay gànnee chaque at fii lay gàmmoo chaque at. Eh, soxna si gis nañ seen teewaay macha allah mu nekk daje boo xam ne daje bu am solo la petit déjeuner bu riche eh, ndax mën nañoo xam tey yëg-yëg bi nga am tey ci daje bi nga xam ni moom la Abdou Aziz Allé woote dénk ko nag àdduna bi asalaamaaleykum Sénégal maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di ñëpp nag macha allah Abdou Aziz Ndiaye dañ koy ñaanal yokkute ndax dafay sama xarit nijaay ci am teraanga macha allah mu invité ñu ñu ñëw mais macha allah dañ koy ñaanal lu mën ren bu déwénee yàlla na man lu ko ëpp yàlla defal ko yokkute bu ñëpp xaj bu àdduna xaj parce que nag nit bu xamee partage kookoo war a am yàlla yokk wér ñu ngi koy ñaanal ci barke weeru gàmm gi ñu nekk lu mu mën ren yàlla na mën bu déwénee lu ko yàlla yokk ko. ñaata at nga dalee ñëw. man nag euh, macha allah maa ngi fi doog a dal ren mais nag wax dëgg fa yàlla ku gis lii moom xam ne yéene la defee. ak euh, innové yàlla na ko yàlla taxaw te jàppale ko macha allah. Aziz di def lu baax di def ci social macha allah euh, bi ñuy waaj a gàmmu jël na ñaareelu soxna àdduna bépp def nañ ci moom seede rafet yow lan ngay dénk soxna si. ah xanaa mu góorgóorlu te xam ne sëy moom boo ci nekkee loo ci def rek day feeñ su dee safaan day feeñ bu dee lu baax day feeñ sëy amul demi mesure sëy moom da sëy rek ba jeex takk. yàlla na ko ci yàlla defal jàmm yàlla defal ko ci njaboot gu barkeel yàlla defal ko ci lépp lu mu bëgg ci barkeelante bi. alors sëñ bi tey gis nañ leen macha allah adduna bi yëpp daje nañ fi mënoo xàmmee ñi nekk ci tarixa yi diine yi ñëpp Aziz daje na leen jag ay bernde yow am solo si bi lan nga ci jàng. waaw bés bi deful lu di ko rafetlu te di ñaanal suñu papa parce que Aziz papa la suñu te ñu ngi koy ñaanal parce que li muy def nii li xol ko mën parce que lii du lu donc bu ko yàlla mayee xol bi ba mu mën ko di ko def dañ koy ñaanal rek yàlla may ko gudd fan ak wér parce que la fii murid ak tijaan xaaral laa ñëpp fi dajaloo donc xolam bu yaatu moo ko meloon ñu koy ñaanal yàlla lépp lu mën rek déwén incha allah mën ko yëpp allah. lan ngay seede ci Aziz digganteem Tiwaawan digganteem ak këru diine yi ba sax ñu bokk ci diine yi ñëpp mu yemale leen ci mbaax. waaw suñ papa Aziz nag tijaan la tijaan dëgg la ndax di ko tijaan la di ko tiijaan bi mooy xam lu baax di def lu baax. mi ngi rafetal jëmale mi ngi rafetal jëmale ci kër diine yëpp ci ci ñu nekk ci Sénégal te loolu rek xol bu rafet moo ko mën ak yar ak teggin te mag bu am cër la mag bu am yar la te ñu ngi koy ñaan bu baax a baax a baax suñu borom gën ko taxaw gën ko wéral ba mu yàgg ci ba mu yàgg di jiite njaboot gi incha allah. kay euh, griot ma yaatu macha allah. këru diine yeeg fépp rek ba ci ñi bokk ci diine l'islam sax am nga ak ñoom cofeel tey gis nañ la. ngay ñëw ci fi nga xam ne moo di kër Abdou Aziz Aly Ndiaye témoignage bi lan lay doon ci bis bu rafet. xanaa ñu koy ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér Abdou Aziz nit ku baax la ku am ngor ku am jom ku mën a jàppale ku dimbale ay mbokkam doon taalibe boo xam ne al amin bi muy dund kenn mënu ko bi mu si bàyyi ko mu gën a yokk loxoom li mu daan def bi El Hadj Aly Ndiaye nekkee mu génnee. adduna dafa yokk loxoom Aziz daal yal na yàlla guddal fanam yokk teraangaam may ko wér péng loolu lañ koy ñaanal. lan ngay wax ci deuxième femme bi adduna bépp def ci moom seen ay rafet. waa Aïcha man mii leen teewunu mais xam na ne xale bu baax la ni ma ko gisee li ma koy ñaan daal na topp si miis jàpp ko comme magam téye ko comme magam xam ne Aziz mi leen sekk lu na xet na si miis daal miin nañ ko si baax. mis Ndiaye miin nañ ko si tabe si yor ñëpp dimbali ñëpp ay Aïcha mii ma gis xale bu baax la may niroo miinu ma ko nag waaye ku ko xool xam ne xale bu baax la ñu koy dénk mi sit mu uuf ko téye ko te xam ne rakkam la tey li may wax rek ku xool si maam Binta mi fi nekkoon di aawo liggéey liggéey bu rafet ba pare dem yoonam li si des war naa mën a rafet. Euh, xaaral ma léem bisimilah barke borom Tuubaa yàlla bu ma waxee heure yàlla bu ma wax doj penc yàlla bu ma wax ma Sénégal yi xeebe barke borom maa ngi siyaar baax di ñaan ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal suñu bopp jàmm di ñaan réew mi jàmm euh, ñëw fii nag gàmm si fi nga xam ne mooy kër Aziz Aly Ndiaye di sama xarit di ku baax wax dëgg yàlla woo ñu téléphone pour ñu ñëw dalal ko loolu nag doon lu sedd suñu xol looloo waral ñu ñëw li mu def ci man lu rëy la ci man nag ndax wax dëgg yàlla ba may doogay tàmbali TikTok bi foogu mën naa si ak ci fii bay xamante ay Aziz Ndiaye ay keneen ak keneen ak keneen ba Aziz Ndiaye di woo téléphone woo ma téléphone di ma pour ma ñëw jàpp mu ne moon agsi naa foofu bi ma ñëwee fi ma gis naa tamit niñ ma téye niñ ma accueillir accueillir dama jëngut waaye foogu mën woon carrément daal dayo bi am naa ko foogu ma woon carrément tamit agsi naa fii daal xanaa vidéo yi may def di ko mbaq ba yàlla dogal mu gis ko mu am lu ko ci neex yàlla dogal mu woo ma téléphone ne ma daal dama bëgg nga ñëw Tiwaawan temps waaw da mel ni jàmm jàmm dellu si na Casamance. maanaam ni mu demee man maako ko tooñoon xam nga ma nag damay tooñ bu dee dëgg. jot na ñu may wax dëgg di ma yeddaale ah, maa ko maa ko tooñoon moom ndax euh, dafa toog ci plateau quartier général ma fa toogee di jug yëre bi lonku ñuy wax Sëñ Tuubaa ma ne ko yow Oustaz da siisoo. da ngay siisu xam naa loolu tamit bokk na li ko mere yàlla dogal ñu dajee kër soxna Momi Kebe bi dajee foofa mu gis ma nuyu ma ma ñëw ma asawala bi ma gisee maa yëg ci kaw escalier yi wàcc nuyu ko ñoo jox ko loxo bi ma ko joxee loxo na ma ko nuyoo comme ni ñu nuyoo sama sëriñ laa ko nuyoo ndax si mina say daal jox ko sama ñaar loxo léegi moom tam nam ma ko delloo xaw maa metti moo tax ñu dajawaat kër sëñ Bas Xaadim Awa ba mu mu nuyu ñi ma àndaloon man nuyu ma loolu metti ma moo tax ma attaqué woon di yëkkati cité waaw li ma ci a bu ko jeexal ñu yor mango bu ko jeexal ndax dafa am i façon dafa am papaaye doomu limon kuy doog a judd lay wen kuy ñuux ñuy ñuux mooy ñi nga xam ne dañoo yor tuuti di mottali koo jël si suufu ween yi rondal si sagar ñooñ ñi nga xam ne ni ñooy ñuux am na ñu yor doomu limon am na ñu yor taab ñu yor taab mooy ñi nga xam ne tey boo bëggoon suturu day mel ku ñeddu laax def nii jàpp mu rëccaat voilà yooyu yëpp da ci am ay façon am na pomme yooyu yëpp am na ci waaye nag maa ngi ko doon jaay foofu noonu far fañ ko doon jaay yàlla dogal eh, yëg ngeen bi ñuy yëkkati ñu foofa man tam damaa bokkoon ci ñu jug isa bi maa ngi ci ab fast food fa laay joobee waaw waaw dama naan lëxi-lëxi leen samay bagage salfaañi leen sama yëf seeni loxo sama biiri bagage am naa manga bu ko jeexal papaaya doomu lima kuy doog a juddulee ween a noonu laa koy waxee kenn ku ne na noo koy jàngee des am jigéen gu ñëw daal di capp daal di reetaan ba bëgg daane ne ko du bagage nga foog bu dee ya nga foog nday mbay ko moom kenn moomu ko amul amul borom libre na ku soxla rek nga ñëw jël sa wërsëg kenn moomu ko wax dëgg yàlla amagut borom daal waaw non awuma gel bu dëgër sax awuma ko man awuma dara maanaam dama naan nday mbay ko moom kenn moomu képp ku sa wërsëg nekk bu la neex nga ñëw jël man moom ñetti yi daane man ñaaw naa nay naa awma xaalis te du ma sañ ci wax dëgg yàlla ku ñëw ci man da nga may dimbale rek te yàlla tax waaye wax dëgg yàlla bu fekkee ne dimbali woo ma te yàlla tax moom wax dëgg yàlla dina metti voilà <laughs> sama xarit bi waxoon na ma ko neewoon lii waaye mais garaawul yàlla baax na sama xarit la nag ku baax la muy baabooy ndax damay woo di ma di ci lu bari wax dëgg yàlla. gis mhm. mhm. mhm. dëgg la dëgg la. waaw buñ sañoon mu fekk ko mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam te lu mënta ñàkk faaw day am moom dañoo jiitu mais yàgg yàgg dañ ko fekk lañ koy ñaanal yàlla xare ko àjjana suuf ayof ci kawam ñun ñu fi nekk tamit yaa ñu may ñu ak wér ak gudd fan bañ mën koo ko ñaanal di taxaw ndax yàlla jamono ji loolu la soxla daal. gis nañu am na ñoo xam ne duñu site ay téléphone dong lañ yor ñoom bës da leen lu ne jaral leen xooluñu ki ki ñuy laaj ba xam après lan la ci conséquence conséquences yi mu ci war am xoolut ñoom seen intérêt la ñu xool moo tax ñi nga xam ne ñooy wax war nañu xool site yi ñuy wax daal te man site boobu noonu du ma koo tudd turam nag fii waaye insha allahu rabbi fu ma ko gisati wallaahi du may interview di ma laaj man may nangu man la wallaahi waa dafa jël sama foto yaa teg ko ca ñaare ba lam bind sa titre ba bind ci xaw ma nu mu ko bindatee dama ko xaw a fàtt nag bind ci yaayu la ma lan mais yoonam néew ci yooyu laajoon na ma mën a ko ba ma ci kon bu mu bëgg ay vie ba tax lëx-lëx ak carrière la fan ci TikTok bi parce que projet maanaam fi ci bëgg yegg mooy fi ñu teg suñu mooy ñaan yàlla rek may ñu gudd fan ak rafet nañ jor daal bu ñu guddee fan amu wér dee dem ca kanam waaw loolu daal la ñaan rek. Mhm. xam nga des fois damay dégg ñu naan Aziz Ndiaye warut takk ñaareel lu tax warut a takk ñaareel te lislaam wax ne jabar mën ngaa takk ba ñeent ah, moom ñaar mën na koo takk na takk ba ñett ba ñeent man mii lax su ma ko mënoon dinaa takk ñeent takku takkoo di doxaan teg ci waaw. ya lu ma ciy ragal man moom amu lu may ragal xanaa eh, ñàkk yor moonin waaye bis ma yoree moonin ma wax dëgg yàlla. waaw ah, mi ngi fay ñu ngi sant yàlla ndax waaye yàlla am nañu baax ñu ci nekk daal <laughs> yàlla baax na daal waaye TikTok daal xéwal ci man. Mm-hmm. Mm-hmm. ah bu baax a baax a baax a baax a baax man tey ji moom bëggoon a jël di ma fay weer ah dana métti ci yow de waaw dana diis. mais TikTok fayut Sénégal xam nga jëmmi jë waaw jëmmi TikTok moom fayut li nga xam ne mooy Sénégal mais man nga ci am publicité aussi tamit mbir moo ci nekke donte boo doon sàcc am nga ciy fana ba agressé am nga agressé am nga ñu ne si bëgg yàlla dogal ne ne ñun ci liñ ne agressé wuñ sàccuñ saagawuñ kenn am na ñu ñu ci bëgg ñeneen ci bëgg dañ leen dañ ñuy gis di jël seen àll di nu may demuñ ci kenn nag naan may maak di lay ñaan waaye ku nu may ñu jël voilà xanaa di sant yàlla baax di suñu bopp jàmm di ñaanal réew mi jàmm di leen ñaanal jàmm Cees am fa daal voilà di leen ñaanal mu doon ay télé yu mag a mag bañ di fa toog di fa toog di fa waxtaane li nga xam ne mooy actualité réew mi ak xew-xew réew mi mu doon ay plateau yu mag di naan yàlla guddal fan yi tawéree cër yi ndax mën nañu waaw man maa ngi jóge Fass Mbao waa ñëw dal si daal bi macha allah ndekki royal célébrité ah. yi waa di wax macha allah di ñaanal Aziz jàmm ju sax ku baax la macha allah ba ñu ñëwee ba tey teraanga rek xam nga ni naan ju ñaari yoon amul fenn waaye fi ñun dañ koy sangoo macha allah Aziz di ko ñaanal jàmm li mu bëgg yàlla na ko ko yàlla defal yàlla bàyyi ko njaboot mu eggaleeg sagoom loolu rek lañ koy ñaanal macha allah. Euh, tey euh, euh. allah ci Aziz parce que man man de. macha allah ci Aziz ñun de ñu ngi gis lépp ci tele bi yi muy def moom moom mun naa ne homme social la liggéeyam rafet na ni muy defeek nit ñi ak ni muy doxalee ci jumaa yeeg yooyu. moo tax du mës ñàkk loolu de laay wax kuy def lu baax moom doo mës ñàkk yàlla na ko yàlla defal yokkute rek loolu rek la ñuy ñaan. lan <laughs> euh, ah di ko ñaanal rek sëy bu barkeel macha allah xam nga yàlla moom lu mu tudd kenn mënu si dara te sëy ñu ngi koy takkee ca aras du dëgg waa di ko ñaanal yàlla na ko bàyyeek moom. yàlla may ko si njaboot gu barkeel macha allah xale bi deman ku régler laa ko foog ndax xam nga nit homme public moom du dugg si lu ko wóorul macha allah loolu rek lañ am luñ ci koy waxal kenn mus ko déggee lu ñaaw kenn mus ko waxal lu ñaaw ñëpp seede nañ ko seede bu benn la loolu rek lañ am lu ñuy wax.